ci lo nek soxna si. maa fi. gëj la gis. ma ngi ni rek. tay da nga leer de. merci wa tay yaa ngi ci dara nak de. baal tooñ waay. sinon yaa ngi ci jamba ça va bien. alhamdullilah man de lenn moma fi indi won tay mhm. bax gi ma deg ñu koy wax ci koñ bi sha allah événement day jub ci te liggéey yu ma daal ma bëggoon rek kuma dimbali si dara wa deg na yu baax yi ngay def si koñ bi. neewoon naa ne sax duma la fi fekk xanaa kañ damaa doxee yaakaar rek far yàlla tasul yaakaar moo tax ma ñëw fekk la fi tey loolu rek laa bëggoon ku ma dimbali. waa dégg naa bu baax li nga wax yow it euh, xale bu baax nga nekk ci koñ bi macha allah hmm? mais am nga jëkkër. déedéet amu jëkkër. Hmm. voilà am na sama benn xarit bu baax bu ñuy wax euh, Dongo mu ngi Brésil xam naa incha allah dinaa la boole ak moom su ko defee mu mën di la jàppale ci yéen yi mais nag euh, amul problème loolu mom deug la tabaski bi bien vrai que ni ñëw na ba paré ta instant bi soxla yu bari nañ et tout hein mais nak euh, fekkoon nga ma toogaale fii benn weccit euh, voilà quoi wul nak parce que dama koy faral di garder pour xam nga rek des fois boy génn wéccit yé que non mais nak 30000 000 la xanaa boo génnee rek dang koy dugg ci boutique bi nga wéccé ko. ko hein su ko défé dina la mëna a fajal dara quoi. jërëjëf way yow de ute nga ak ñu bëri am na ñoo xam ne de balaa ñu laa jox dara surtout si événement bi duggal lañ lay wax ba pare te yow waxoo ma duggal génnal nga ma wax xanaa di la wax jërëjëf. non yow dama lay may jëkkër dongo laa lay jox incha allah. yal na yàlla fay yow. ko defee maa ngi ñëw def. merci beaucoup yow ñoo baax ok nuyul ma waa kër ga. va sans musique. Ça va Ça va, bien. ok. waaw mais ni nga def ci été bi ah. macha allah ah yow kat moo lay solal. mais man fang sa laa ah. dama lay bégee instant bi. la. mais dama gis nga yor quoi dama bëggoon nga wecc ma dama la seen ngay ñëw yor wecc nii nga ma ah oui buang ada dem waali nii xam nga te dama bu ma demee dama war a baatare te li ma yor bëriwul yaa ma gën a comprendre trente mille la de trente mille bëggoon nga wecc ma ko comme ça lii dugal trente la waaw trente la trente merci merci mais ngay ngay ay gañe dafa rafet hmm la puissance jaaxle wo mama xey suba ba jant so kenn gisuko ko kenn dégg ko yow baye mama man mama nga xam tabaski bu mu ñëwee bu ñu way ñëw ba lay toogu day wër rek day wër rek mama de man dugg be bay génn mam bii jaaxal na mom ba dafa melni xalé jigen yi nga xamantene bu tabaski di waji ñew dañuy jaay seen gor ndal mom non rek laaj bu tang bi muy dox rek man damay ragal mu toy man moma ma jaaxal waaye xam heure añ heure añ buy jot nak da nan wëra ñew laaj bu tang bi dal mom day dox rek ke day mu ñew de talta yeen dal tal dafa fanaanal ndax événement bi ke day mu ñew de maaleykum oh, yéen a ngi toog egsi na egsi na maa ngi nii la si jàmm. mama ça ya yaa def sa couleur été nii. dafa tàng rek ma sàndee ko bañ a fëlaale tamit. ndax dafa tàng. yaa ngi wuccaxu de. tàngaay bi ngay e wër rek. yéen daal fii ngeen di toog daal seen clim mu leen di ëpp. ngeen di enjoy seen bopp man dama kootalu dama jub si événement muy lu rëy ñu koy wax tabax si du dëgg. nee naa la koy wóodoo làmmiñ boo noppee reflet te man nag sama làmmiñ bi laa yor ak sama tànk bi wër di kaaje da ngay di kaaje. maa la ko wax maman fay laa sant. ares gi dama ko tege na temps yi fay laa sant. trente mille laa am nii ci kaaja bi. waaw moom maa la ko wax man dama riis. sama càmmeñ lu baax dafa lu xam teraanga. maa la ko wax. ma dem seeti ko mu dóor ma ay xaalis ba ma kontaan. Ah, kenn du moom de. trente mille francs. jaan ba ma màttal ma bàyyi ci dangal ja. màtt mm. na gone ga. ma ko doon wax rek. maman na ko jaan nga mille ah. bii sax da dul original de malheureusement yow vingt mille nga fi indi te na nga ne trente mille. yow de loolu ñuy wax naan instant bi alalu police nga wala gendarmerie. ñuy teel ki nga lay wër léegi. yow la jàppal jàppal jàppal.

sama dewan kaja je mada jeg ben gara kaje fa ma kaje bañ may ma tarante mi gara mi dama indil ma wéccé la ma daal di koy jox mu wéccé ma nak tarante bi nan ko koy jëlé di ko wéccéku lool ki wax sa xel mi du macc say cet bu sew la won mama mama posé la question ah mama ma ya posé la question Mama julli bi lu dess batay xam nga sa ay bëreetu moi julli bu ñëwé batay ba résultat nga fi indi ci résultat waaye non nga téye sa tànk bi di toog. du tax ba dellu ginnaaw. ba tey doo bàyyi. doo eh, bàyyi maman bu ñu am sa problème de. dama koy jaay nii. dama nañ ma jaay. <laughs> yow de bu ñu seeyee gendarme dañ lay tëj ba damm ca caabi ja. waaw ah, booy yooy. musuma jóg <laughs> waa ji trompé na ma. <laughs> booy yooy tey lay ne. Enggak, tempunya ini perolehan